Bafouba ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. Mhm. may fàttali suñu auditeurs yi ne tey ñoo ngi dalal euh, ki jiite Croix-Rouge sénégalaise muy présidente bi madame Bafouba tey jii ñu bëggoon xam Croix-Rouge euh, Sénégal taxawaayam euh, ak autorité publique yi nan la ñuy liggéeyee ci jamono crise sanitaire gi. maa ngi lay gërëm bu baax ci laaj boobu nga ma laaj. Mhm. parce que ñu bari xamuñu ne Croix-Rouge Sénégal état bi moo ko moo ko moo ko créé moo ko sos xam nga bi bi état Sénégal amee indépendance. Mhm. ci la jël nag Croix-Rouge bi nekkoon Croix-Rouge France mu ne léegi Croix-Rouge Sénégal la tudd donc Croix-Rouge nag donc du dara waru ko lu dul nag taxaw ci wetu état bi. Mhm. Euh, topp ci gannaawam ah di ko jàppale ci lu bari waaye nag jàppale boobu euh, ci lépp nag lay doon waaye euh, gën na raw nag ci mbirum mm, kër docteur mbirum santé daal ak mbirum jàngale croix ICOS daf taxaw bu baax a baax a baax biñ ko sosee ba léegi. Mhm. te foo dem ci euh, fukki gox yi ak ñeent muy fukki région yi da fa fekk ci departement bu nekk Croix-Rouge. Mhm. donc euh, Croix-Rouge kuréel mag la kuréel goo xam ne foo dem tey ci biir Sénégal da nga fekk Croix-Rouge. Mhm. ah ñu bari nag di ci yëngu ay ay nit ñu bari ñoo xam ne seen xam-xam wala seen jot wala seen xaalis may na leen ko ñu jëw na ñëw ne dañu ñu loolu mooy mooy mooy mooy mooy croix rouge. Mhm. tey jii nan la ñuy nan ngeen di jàppale yéen waa croix rouge euh, autorité publique yi justement ci lii di xeexu corona bi. waaw ñun nag xam nga euh, dañuy dañuy préparé woon ñun euh, ñu ngi juddoo woon croix rouge ñu ngi juddoo ci guerre donc ñun fu ñu toll ñu ngi préparé pour daal mbir bu jàmp bu amee rek ñu taxaw ci loolu la ñuy li ñuy wooyee volontaires yi ma maanaam ñi nga xam ne daal dañu ne ñoom am nañu jot wala am na nañu xam-xam. Mhm. seen jot boobu dañu ñëw dimbali courage pour mu jàppale askan wi donc fekkoon na ñun biñ ko déggee ci Chine rek avant mu egsi ñun dañoo préparé formé waat xale yi ndax ci Ebola bi bi mu fi amee gisoon nañu taxawaayu Croix Rouge donc bi muy ñëw bett ñu ndax ñun préparé wuñu préparé na ci loolu bi ñu donc bi mu ñëwee rek état bi tam xam nañu ñun suñu liggéey biir réew mi ak ci réew mhm. ñu euh, daf ñu daal di boole ci lépp wax dëgg yàlla kuréel boo jot rek croix rouge ma nga fa am na sa représentant kuréel ci kuréel yi nga xam ne état bi daf ko taxawal ñu ngi fépp boo demee ci département yi aussi ñu ngi ànd di liggéey ak médecin chef yi def ci département yi comme ci région yi boo ñëwee fii au niveau national ña nga fa boo ñëwee ci boo demee ci centre yi nga xam ne ñi feebar fa la ñu leen euh, yóbbu di leen faj ña fa ndax am nañu ay médecin am nañu ay infirmier am nañu ay sage-femme hmm. am nañu ñu niy wooyee hygiéniste maanaam ñi nga xam ne ñooy nettoyer ñooy fóot ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy fobeere ñooy bale moom ñoom daal ñooy setal fi nit nit ñi centre yi nga xam ne foofu la ñu hospitalisé nit ñi wala fi nga xam ne foofu la ñu eh, denc denc nit ñi pour seet ndax jàngoro ji ni ngi ci seen yaram wala nekk boo demee ci centre de confinement yi hôtel yeeg yooyu xale yi Croix-Rouge yi rek nga fay fekk volontaires yi rek nga fay fekk wax dëgg yàlla uh-huh. kon tey ñi naan euh, croix rouge moo yor tey liggéey assistants sociaux yi mën nañ ne du benn. déedéet assistance sociale liggéeyam ak liggéeyu croix rouge du benn. Hmm. mën nañu tase nag kenn ndax mën nañu tase ci ndimbal xam nga assistance sociale ci ndimbal euh, boo ko waxee ci la bokk waaye du loolu di lu croix rouge di def lépp nag na assistance sociaux yi ku nekk dafa am fooy yem xam nga wax naa la léegi na la ñun am nañu ay médecin am nañu ay sage am nañu ay infirmier am nañu ñoo xam ne euh, yi ni kiiwal fa la ñu war a def wala bu ñuy samp tante yi ñu def ko donc façon liggéeykat bu nekk mën na nekk croix rouge euh, façon comptable mën na nekk croix rouge keneen noonu keneen mm-hmm. ah, bi mën naa ci dem ñaari yoon croix rouge su ma demee jàppale leen ci la ñuy communiquer ndax xëy na mën na am mënuñu fay journaliste wala xëy na journaliste bi ñu am moom kese mm-hmm. loolu la ñu volontariat ah, moo moo lal moo lal moo lal suñu liggéey volontariat moo lal suñu liggéey yërmande moo lal suñu liggéey jàppalante moo lal suñu liggéey euh, bañ a farfarloo moo lal suñu liggéey mhm. ndax loolu lu am solo la ñun faruñoo kenn lu ñu nekk nekk ci be ci ci wetu état bi ñun duñu politique danañ jàppale nit ki muy ku weex ki muy ku ñuul ki muy pël bi muy naar bi muy tukuleur bi muy muy murit bi muy tiijaan bi muy chrétien bi ñun duñu seet euh, nit ki daal bu amee jafe-jafe rek ñun dañuy taxaw jàppale ko ngir yàlla comme ni ko wolof di waxee dañ koy jàppale parce que war nañ ko jàppale mooy impartialité mooy neutralité ndax dafa am juróom-ñaari ponk yoo xam ne ñun ci lañu tënku te juróom-ñaari ponk yooyu dafa am solo trop ci ñun boo gisee croix rouge volontaire buy liggéey te boolewu ca impartialité maanaam xaru la kenn neutralité xoolul ki eh, jullit la wala wala chrétien la wala pël la wala naar mm-hmm. unité mooy li ñuy def dañ koy ngay bokk ak ñett universalité mooy foo dem ci àddina bi da nga fa fekk croix rouge mooy humanité muy yërmande donc muy volontariat mooy ngay liggéey te séntuwoo ca fay mhm. xanaa fayu yàlla waaye séntuwoo ca fayu xaalis wala leneen bu la ko joxee nag nga jël waaye doo wax kenn danga may fay pour ma dimbale la déedéet da ngay dimbale balu la ca fekk fekk la mhm. donc loolu mooy moom ci ponk yooyu juróom-ñaari ponk yooyu muy sept principe yi ci la croix rouge tënku a ci pour mën a liggéey liggéeyam ci wetu ku nekk nag muy état bi muy keneen képp ku soxla rek Croix Rouge mu nekk ci sa wet liggéey ko ndax loolu. Mhm. c'est vrai que volontariat bi moo ko lal mais tey jii est-ce que seen i euh, éléments yi nekk ci terrain bi équipé ngeen leen assez pour ñu mën a euh, def liggéey bi nu mu waree. xam nga bu ñu leen équipé wul man ca départ ba dama ne képp kuy dem ci terrain bi te amuloo équipement bul dem toogal sa kër ndax dañ lay wax nag bul dem nag di ndimbal ndimbal mhm. loo fekkee parce que boo demee nag waruloo ne damay dem pour deewi déedéet da ngay dem pour ànd ak sa wér sa tal sa dal mhm. pour dimbale nit ki mu wér bon yow waroo feebar mhm. ndax boo feebaree dootoo mën a jàppale dootoo mën a dimbale ki nga war a dimbale donc loolu la ñuy wax boo booy dem ku fay dem rek war nga am li euh, euh, nga war a sol yëpp da ko war a am. boo koy jox. xam nga état bi nag wax dëgg yàlla loolu moom la war. Mhm. léegi ñun suñu amee ñu nañu jàppale état bi parce que tamit euh, léeg-léeg ñu am ay ndimbal yoo xam ne dañ koy def su ko defee état bi du soxla jox ñu ko waaye loolu état bi la war. bu mhm. bu ñun nag bu nu amee dooleel état bi su ñu amul dina état bi jox ñu lu ñu sol. wala du ñu dem loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom ci sunuy sart la bokk bu ñuy dem di dimbale ji daal dañuy jël sunu matuwaay yépp bu nu ko amul waa euh, ñu toog mhm. waaw tey ñaata élément ngeen déployé ci terrain bi euh, ëpp na daal euh, ñetti junni man nañ ko tënk ci ñetti junni ak juróomi téeméer mhm. waaye nag ci département yépp ci ñeent fukki département yi ak juróom lañ koy la la nga koy fekk Mm-hmm. foo ci dem ci ñeent fukki département yooyu ak juróom ci centre de confinement yi maanaam ci hôtel yi ñuy denc nit ñi nga xam ne ñu ngi seet seen yaram mm-hmm. wala ci centre yi ni yi nga xam ne mu foofu la ñuy fajee nit ñi wala ci sensibilisation bi ñu ngi fépp ñu ngi fépp mm-hmm. ndax li wax naa la ko ca njëlbéen ga dañ ci gis ay médecin dañ ci gis ay infirmier dañ ci gis ñoo xam ne ñooy ñooy setal dëkkuwaay yi nekkuwaay yi nit ñi nekk donc ñooñu xam nga bon ñu ngi fépp ñu ngi tamit ci ci ci comité national bi. fee mhm. ca Fann boo fa demee eh, suba bu jot huit heures ba dix heures ña nga bokk ci réunion bu mag boobu nga xam ne te ministère ba lañ koy defee. Mhm. pour seet daal nan la ñuy liggéeyee ci bés bi ak situation bés bi bu mu toll. Mhm. donc ci commission yépp nag wax bi boole croix rouge parce que xam nañu ñoom njëriñu croix rouge. tey eh, jafe-jafe du ñàkk si bépp liggéey ñoom ci wàllum corona bi yan jafe-jafe la gën di jànkoonte si terrain bi comme retour retour info yi ngay am. xam nga xam nga nag eh, jafe-jafe yi moom du ñàkk waaye ñi ngi sant yàlla boobu ba léegi nag wax dëgg ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib waaye eh, jafe-jafe nag du ñàkk léeg-léeg eh, ñu ñu ne par exemple seen carburant doyul hmm. ndax. li ma la waxul ca njëlbeen yëpp ñun wax nañ la ci faj bi ci cetuwaayu dëkkukaay yi mm-hmm. ci ci ci ànd ak euh, euh, toppatoo ñi nga xam ne ñi ngi ci oto yi ñu war a jokkook seen waa kër yi mm-hmm. euh, ci téléphone ñu yombalal leen ko di leen joxal seeni course di leen jox ñu ñu lekk ak yooyu dañ koy def waaye tim ñaanuñu ko yàlla li ci génn àddina xëy na néew na par rapport ak yeneen dëkk yeneen réew yi mm-hmm. waaye bu ñu demee ba di leen denc nag euh, croix rouge moo leen di denc moo leen di dugal bu ñu gasee ba pare rax euh, sang leen julee leen ba pare ah xale yi croix rouge yi nag ñoo leen di dugal ci biir euh, bàmmeel bi ñaanuñu ko yàlla waaye loolu yëpp dañ koy def dañuy def aussi ay évacuation ci guddi gi ndax am na ñu feebar nekk ci seen biir kër yi te bu guddee bi ñu mën a génn génnati donc waaye ñu xalaatoon ne ñooñu war nañ leen a jàpp leen ndax ñu lu aju ci ndimbal rek ña fa ñu def ay évacuation sanitaire léeg-léeg nag xam nga course yu bari yooyu léeg-léeg ñu manqué carburant bu ko defee bu ñu ko waxee ñu wut ko jox leen ko wala ay doomu aadama yoo xam ne nit ñu laa biir la ñu waaye am nañ ko tin ñu jàppale leen yu mel noonu daal wax dëgg yàlla am la ñu am ndax ah, xëy na mhm, ndax xëy na léeg-léeg transport bi euh, waaye waxtu wu nu waxee daal seen i jafe-jafe ñu essayer euh, euh, jàppale leen ci daal ba jafe-jafe yu yu tar tar yooyu daal wax dëgg amaguñu ko nag. amagu leen ko waaw institution bi tey nan lay doxee euh, nu mu def. Croix-Rouge ah, sénégalaise. ah ñu ngi ci jàmm nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàmm man nag bi ma fi bi ñu ma faleeg léegi eh, yàggagul. Mhm. Euh, septembre bii rek la woon waaye am na lu ëpp nag juróom benn weer bi ma ñëwee nag wax dëgg fekkoon naa fi ay jafe-jafe ndax fekkoon naa nit ñi toog ñeenti weer fayuñu seen salaire waaye fii ba mois de mars bii nag fayu nañu alhamdulilah maa ngi sant bu baax sant yàlla mu xeeb dolli. Mhm. waaye nag bi corona bi ñëwee Euh, école yi ubbeetuñu mm-hmm. donc parents yi nangu ñoo fay te loolu tim kenn du leen ci wax dara ndax ku jàngalul sa doom doo ko mën a fayul mm-hmm. waaye tim ñi ci doon jàngale tim ñi ngi yaakaar jot seen salaire comme privé la duñu duñu duñu duñu état bi loolu day indi ay jafe-jafe mm-hmm. ñi ngi seet nag nuñ koy nuñ koy fajee waaye daal ay jafe-jafe ngi foofu euh, li ñu mën a wax nag mooy ci liggéey bi mooy dem ci terrain bi ci liggéey di sensibiliser ak volontaires yeeg yooyu yooyu amuñu ci benn jafe joxe ndax ni ñuy jàppale ci bitim réew ak yooyu ñoom façon yu mel noonu la ñuy la ñuy joxe seen xaalis waaye du ñu joxe seen xaalis pour fay nit ki salaire wala pour fay ndox wala pour fay làmp wala pour daal euh, pour daal fonctionner pour daal doxal mhm. déedéet ñoom liggéey bi ngay liggéey ci terrain bi activité boobu li ngay def daal jëf yi ngay jëf yooyu lan lay jàppale donc euh, mais jafe-jafe yi ñu am daal def naa moom la Sénégal yëpp am moom la àddina bi yëpp am mooy sunu ñoo xam ne war nañ leen fay te amaguñu lu leen fayee. Mm, seen rentrée de fonds yi fan lay jógee justement. sunu. rentrée de fonds yi. ah rentrée de fonds yi ni ma ko waxee léegi ci jardin d' enfant yeeg école yi lay jógee. Mm-hmm. waaye tim ci ci subvention état bi lay jógee ak euh, subvention assemblée état bi daanam ñu jox euh, fanweeri million ci ci at mi euh, waaye dañ ko wàññi bu baax depuis deux mille dix neuf fukk wala fukk ak juróom jot. te xam nga bu ñu la waxee na la <laughs> weer wi rek ñu ngi fay ay salaire lu jege vingt millions ñaar fukki millions donc fukki millions wala fukki millions juróom xam nga ne jariñu lu bari xeebu ñu ko nag waaye nag bu ñu doole woon di ñu sant yàlla bu baax a baax assemblée nationale ñaari millions par par at la ñuy jox euh, ren moom joxaguñ ñu ko bon euh, lonage moom daanañu jox moom fanweeri millions waaye xam nga ak changement yi am day day jafe ñu jot suivant pension waaye wax dëgg yàlla ka fa nekkoon daal ki fi jógee moom euh, wax dëgg yàlla am daana jàppale bu baax Croix Rouge bu nekkoon ci ay jafe-jafe sax daf ci jàpp bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla ki ka remplacé tim di def ni ki fa jógee doon def ñu ngi ñaan bu baax a baax d'accord madame Croix Rouge daal mhm. noonu noonu lay noonu lay doxee xam nga koo xam ne nag danga ne jàpp dimbale ma ma dimbale nit ki mhm. bon ñëpp ci war a jàpp yow moomu di journaliste bu la neexoon nga ne ne ah man kat euh, dinaa dem altine bu jot wala euh, alxames bu jot danaa def ñaari waxtu Croix-Rouge jàppale leen ci seen communication jàppale journaliste ba fa nekk naka bu ñu doxalee woon nii bu ñu wutee woon nii xaalis danañ ko mën a am wala xëy na nga ne ah réew mi FM mi war na ci dugal at mu jot euh, junneem nekk donateur Croix-Rouge loolu day am solo trop trop trop trop te maa ngi ubbil buntu yi ñett képp ku ci mën dara nga ñëw jàpp ji ndax ñun ci lool rek la ñuy la ñuy wéy di ñaax nit ñi pour ñu ñëw biir Croix-Rouge ñi am seen xam-xam dugal ko fi ñi am seen poos du eh, di ci coppati tuuti di dugal waaye ñi am xalaat yoo xam ne dana mën indi leneen aussi mhm. ñu ñëw bokk ci xalaat boobu ñu ànd liggéey merci beaucoup madame Bafouba jërëjëf merci beaucoup uh-huh, may fàttali suñu auditeurs yi ne yow yaay présidente Croix-Rouge sénégalaise doonoon suñu gan merci merci beaucoup jërëjëf